très bien euh, Cheikh Omar pour terminer ci mbirum euh, ex commissaire Keita kàddu yu mu yëkkati woon ba tey jii ñu gis ni euh, def nañ ko retour de parquet. waaw c'est c'est c'est une suite logique parce que suñu waxee retour de parquet ou mandat de dépôt lañu retour de parquet mandat de dépôt bi. c'est une information boo xam ne c'est pas euh, vérifié. moo bind mm. que il est placé sous mandat de dépôt. c'est pas avéré je pense. Mm. Mm. en tout cas bi ñu vérifié retour de parquet. parce que c'est différent entre retour de parquet ak euh, mandat de dépôt c'est un peu différent. non léegi terme yooyu maîtriser nañu ko ndax Macky Sall. bilan bi la bokk ah, <laughs> ah yow bilan Macky bi loolu moom. <laughs> parquet retour parquet garde à vue instruction. mandat de dépôt. waaw léegi yow non non yow yaa war di jàngale loolu waaye kenn waratu loo ko jàngale ne apprentissage par la pratique lan lan ñu ko defal kay moom kay yow kay war mën naa la c'est clair nga jox may cours <laughs> soo xëyee fajar rek ba oto bi taxaw rek ma si saar ñaa préparez-vous parquet yàlla nañ ko yàlla ci kii bi nag nu mu tudd seen corbillard euh, boobu noonu nga xam ne. kaar bi kaar bi mu ngi fi ba tey de. te tey la fi gën a ne. mooy mooy bi nekk rëbës si suuf. <laughs> même campagne <laughs> foofu la foofu la progrès di waaye yow amul jigéenu biir mm. amul kenn maanaam amul benn kii nii mm-hmm. boo mënti falal lay yëpp bu oto bi tëbee. noo mënti mel mm-hmm. bu. àndeeg doo daan bi da ngay sa omoplate bii moom du ko fekkee moom da nii ngeen di def raas. daal après nawaan nii rek toog. Mm-hmm. nga dem parquet ñu teg la ci kaaf ba. nga toog di nelaw yeewu nelaw yeewu nelaw yeewu ba ay 18 yooyu chef may ñëw na la Mati Sarr ñaa kay dellu rëbës nga delluwaat rëbës loolu mooy parquet retour parquet. allahu akbar leer na de leer na nañ. donc hmm. donc donc. Euh, su fekkee ni retour de parquet cest à buñ la dafa am garde à vue mu am une dure légale. Hmm. su durée légale bi jeexee il faut ñu laaj procureur pour ñu mun ko yokk. mun nañ koo prolonger ba 96 heures mais suñu waxee retour de parquet mooy. yóbbu nañ la ci procureur mu lay mm-hmm. déglu te pareegul. Mm-hmm. su fekkee pareegul ñun retour de parquet mën nañ la euh, téyandi soit ci ci kaaf bi wala ñu dénkaane la ci. ci mm-hmm. policier yooyu. mais am na ñoo xam ne nag mën nañ leen yóbbu mais bu ñu la waxee mandat de dépôt mooy dañ laa jël dénkaane la fa en attendant après bu ñu waxee instruction souvent euh, dañ naan juge bi am na ku dénk pour mu def enquête mais malheureusement su Macky Sall hmm. da nga gis ku nekk flagrant délit flagrant délit xam nga loolu amul lu ñu ci instruire ñu dóor la instruction six mois fàtte la fa ba sept mois après ñu dog laa déglu benn yoon après ñu àttel on l'a fait à Bara Gaye bi mu waxee ñu ne offense au chef de l'État dañ mm-hmm. ko yóbbu ne ko instruction si loo xam ne c'est flagrant à la différence de régime bi bi ñu jàppee Bah Diakhaté xam nga bu leen neexoon ñu def comme gars yi ñu def yóbbul instruction six mois après doog la mm-hmm. mais moom dañ ko jàpp atte ko ci nu mu gën a gaawee ci ci ci flagrant délit parce que man dama doon toog naan dëkk bi dafa mel ni lii doon mm-hmm. waxuma ko tey Serigne mën nga koo seede fi Macky di nekk si yow ko njëkk a dégg waaw ak Antoine Diome ak ñëpp man ca laa naa leen dëkk bi comme parce que métaphore la bu mu doon def ak kii bi ak terre bi waaw nga ne day wàccee ñii rek jël ñii waaw loolu laa wax <laughs> parce que terre bi rëbës la jëm mm-hmm. donc dama lay waxoon sax terre bi nañ tuddee train express rëbës noonu laa ko tuddee woon mm-hmm. parce que on avait des arrestations tout azimuts pour un oui pour un non euh, si on a une appartenance politique ou si on donne ses opinions. je crois que si cause boobu Mati bi ñu waxee loolu da ngaa dégg rek elle commence à te raconter elle commence à te narrer ce qu'elle a vécu. vous imaginez traumatisme boobu daf koy topp waxatuma laak euh, ñu tëj la ci kaso ay weer ci loo xamante ni euh, defoo waxoo lu dul da nga bind benn poste ñu jël li nga bind. Mm-hmm. ne danga am koo tudd ab juge baaxum mais yamuñu ci. ñu jël la sëf la lépp loo moo tax ma doon wax justice collé motif parce que ñun en banlieue dañ lay wax collé motif parce que collé motif mooy ñu jël la jàpp la wut lu ñu la xamante dañ la taqal pour pëtëxal la donc loolu yëpp lu muy wone mooy li nga xamante ni moo fi amoon moo tax moi je considère qu'on a rupture te loolu laa gëm te loolu laa fas yéene ñu taxaw ci te sax ci parce que waxuma ko Thierno Alassane Sall c'est un opposant qui assume ses positions mm-hmm. mais dafa ne dafa porter plainte ci procureur ci affaire ONAS bi. ñu tontu ko ne ko nangu nañ sa plainte lancer nañ pour def enquête. Mhm. mu ne moom yàgg na di porter plainte ci régime bi fi nekkoon kenn mos koo faale. mais bii porte na plainte mhm. ñu commencé jox ko information ne ko dinañ tàmbali mbir mi kon moom jàpp na ni loolu rupture la. kon mhm. nag mun nga nekk opposant mais soo gisee loo xamante ni. war nga koo wax wax nga ko et ça je crois qu'il a été honnête sur cette question maintenant pour revenir ci li nga wax. nous sommes la scène politique. euh, je crois que liberté dafa ànd ak responsabilité moi j'ai l'habitude su ma expliquer ma ne leen yàlla suñu borom daf ñu jox liberté mais bi mu la joxee liberté def ci gàll responsabilité ni nga amee liberté wax lu la neex wala def lu la neex na nga am responsabilité xam ni li nga def yaa ko def mais sa responsabilité moo la war a freiner parce que liberté s'arrête liberté des uns s'arrête la où commence des autres. des autres nekk ci dans une république où on a des institutions. il faut comprendre que Bassirou Diomaye Faye avant et Bassirou Diomaye Faye aujourd'hui c'est différent mm-hmm. lu tax député bu la woowee nga ne dama am immunité parlementaire parce que am na loo xamante ni sañ-sañ la wala mm-hmm. àq la boo xam ni wala cër la boo xam ni yoon jox na la ko. mus nañ waxtaanee ci mbiru commissaire Keita fii ma ne leen commissaire Keita de kenn du ne ma xamul yoon. parce que mënoo nekk commissaire je crois que bi muy nekk commissaire bëri na si ñun ñu juddu bi muy nekk alkaati euh, am na ay position mën nga ànd ak moom ci position wala bañ a ànd ak moom ci position moi je suis pour la liberté d'expression mais avec le sens même de la responsabilité et quand vous avez failli ci loolu je crois que di nga assumer say say say responsabilités parce que li nga xamante ni kàddu yi yëkkati woon na ko mm-hmm. loolu moo taxoon ñu woo ko parce que quand il avait dit président ak premier ministre doon jotee da ngay dem Touba du ma dem Touba. Mhm. genre genre wax boobu Serigne a raison mën na am un impact wala interprétation mhm. parce que souvent ay ni ñu doon wax Sonko ak Jomaay li nangam sangam. Mhm. donc pour man c'est le procureur qui qui s'est saisi de cette question. maintenant man ci sama xalaat bu gàtt peut-être à son âge euh, de plus euh, je waxuma sax clémence mais tey am nañ ñoo xamante ni am nañ fi ay bracelet. te te mag la mën nañ ko defal bracelet saa ko soxlaa. d'accord bu fekkee nag ba keroog ñu koy àtte bu ñu ko àttee bu fekkee am na lu ñu ko daan ñu daan ko ko. mais pour man euh, tey à aussi am na yoo xamante ne il devrait pas se les permettre. Mhm. parce que moi je rappelle toujours que quand tu es sur la classe politique à chaque fois que tu donnes des coups tu reçois des coups. j'ai vu la réaction de ses de ses enfants. Mhm. doomam boobu dafa engagé wu ci Sonko bi papaam mhm. engagé wu ci ci ci loolu lay wane démocratie parfois yow Euh, sa doom bëgg lii donc pour man euh, loolu invitation la à toute la classe politique parce que ñun mérité wuñu xaarante wu ñu waxante lu ñaaw li Serigne wax laa d'accord on veut une opposition intelligente on veut une opposition de construction et non une opposition de déconstruction permanente c'est ça que le débat soit posé aujourd'hui sur les questions de l'immigration problématique la boo xamante ni yàgg na fi te am na ba tey mhm. yan solution la ñu mën a apporter Moi, j'aurais aimé entendre le commissaire Keïta avec son expérience sur des questions de sécurité mu poser débat ñu teg loo xam ne ay argument la ak ay idées. quant à Ahmed Suzanne Camara pour man y' a pas plus réew que Ahmed Suzanne Camara. man su ma amoon sama doom Ahmed Suzanne Camara du ko jàngal bu dee suñuy doom yu mel ni ñoo leen di jàngal ba nous sommes ah, foutus. waaw wax nga dëgg ah enseignant bi ñu def seen xawma ma euh, nu mu tudd. association APR enseignant. dégg nga saaga yi doon damay saaga yu ñaaw. ñoom seen biir. mooy réseau bi seen réseau musul génn wax jàmm. moom la fi sama xarit bi mbéjoon galotaal ci débat. parce que toog naa moom mu saaga Ablaye Wade kooku kooku deretam yëngu mu tëgg ko tëgg te galo Ablaye rek la bëgg saan maa ngi koy nuyu parce que il est de Kébémer comprendre nga koo xam ni saa yoo génnee mu musiba rek ngay wax nan la mënoon a toogee ne nañ dem taal kër Sonko lu procureur waxul kenn waxul kenn yeeyul kenn yàpp joon du mu doon gasi appel au mort ma ne gasi léegi nag yooyu jeex na fi mu toll nii ku wax lu waxul yàq bi daal sa kaw donc nag il faut ñu am plus de sens de de de de de de responsabilité et man je lance un appel aux autorités tey peut-être le commissaire Keita au vie de sonage war nañu mën a aménager au moins pour que ñu defal ko bracelet. Mhm. ñu ko soxlaa ñu mën ko d'accord parce boo ko ñaanee <laughs> kii l'autorité exécutive. te eh, gaa ñu fal day naan procureur fii la Ousmane Sonko toog ne procureur jël na vidéo yónnee ko di ko laaj. demal si beneen sujet d'accord léegi su ñu waxee autorité rek mate fa laa na nekk autorité judiciaire wala beneen autorité on comprend c'est le plus important doo ko leeral jarul moo koy leer leer bu ëpp day indi lan demal bu dee nante nga rek di nga sib action merci beaucoup très rapidement ñu jàll ci euh, <laughs> beneen ponk muy tour du web daal di ci ànd ak Mati Sarr Niang lépp euh, ñu daal di doore mat mati ak plainte bi nga xam ni l'honorable Mamadou Lamine Diallo ak kii di Abass Fall daal di nañ ko déposé. waaw mu nekk plainte boo xamante ni euh, ñaari député yooyu noonu di Mamadou Lamine Diallo Tekki ak euh, honorable député Abass Fall daal di nañ koy déposé ci table de la République euh, plainte bi nag li tax ñu déposé ko mooy usage de faux et du règlement intérieur de l'Assemblée nationale plainte boobu li ko tax a jóg mooy pour ñu situer responsabilité yi jëm ci grave retouche yooyu noonu daal di am ci règlement intérieur bi sans pour autant que député yi nga xamante ni ñoom ñoo fa nekk ñu daal di koy yëg